wajalilaayi maskani tubaabaat misrasmi abijaayi xayri ma nabaat ñi ngi santaat yàlla bu baax ci teewaay bi di jot tey li ñuy wax réceptionné luy tolloog juróomi junni lamp ni ko Touba ca kanam baaxoo defee at mu jot dinañu fàggu ab lim ci ay lamp andi ko ci dëkk bi ngir yokk leeraayu dëkk bi loolu ba Touba ca kanam juddoo ba léegi mi ngi ci jot na cee dox nag jéego yu am am solo yoo xam ne eh, luñ mën a gis la fi mu ne. taat yàlla bu baax ndax bii yoon eh, yokkaat nañ qualité lamp yi nga xam ne moom la Touba Ca Kanam daan jënd ndax ne lampe yi Touba Ca di jënd mooy lampe yoo xam ne dafa am ay capteur yuy tax bu guddi jotee mu tàkkal boppam bu bët set eh, bu asamaan setee mu mu fay nga xam ne du am ay contact yu ni mel. bi yoon nag yooyu amélioré nañ ko jëlee nañ garantie bi ci ñetti at yóbbu ko ci juróomi at ngir rek mu gën a mu gën a am qualité ndax aw doxin loolu la laaj. Euh, ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo installé tamit noonu lañ koy wéyalee mooy tàmbalee rek ci fi ñu yemoon euh, xoolaat yeneen gox yi recensé ko waxtaan ci ñi ci baaxoo àndal tamit noonu lañ koy fas yéene defewaat ndax ñaare saa suñ bindee bu ñu waxtaanee ba juboo ci anam gi ñu ko war a installé dañ koy bind yónnee ko sous-préfet bind ko yónnee ko commune bi bind ko yónnee ko Sénélec euh, commune bu Touba nag yàgg na cee ànd ak Touba ca kanam ci joxe personnel joxe ay jumtuwaay yu tax ñu jàpp ci euh, ci installation bi ndax éclairage public domaine de compétence commune la loolu moo tax commune bi jamono bu nekk da ciy ànd ak euh, kanam kon noon ci sant bu baax bi yoon nag juróomi junni yii ñu amaat ñi toll ci 5000 lampes war koo installé dina am leneen lu mu yóbbaale ndax diggante kër Sëriñ Sidi Maxtaar gi nekk ci yoonu euh, Daaru Muxti ba ba ngay dem ci hôpital bu bees ba Cheikh Mouhamadou Mountakha dafa jox ndigal Touba Ca Kanam ngir ñu éclairer ko te loolu danañ ko yóbbaale ci biir lamp yi mi ngi toll ak à peu près 200 lampes lay tollool dinañ ko dinañ ko ci installé ndax fi mu ne nii commandé nañu poto lamp yi di ko xaar bu poto yi ñëwee rek ñu boole ci boobu liggéey fas yéene ko boole liggéey bi euh, xëy na leneen liñ ci liñ ci waroon a dolliwaat rek mooy que ne liggéeyu Touba Ca Kanam moom laaj luñ mën la di ko def fu ñu xam te ni nga ko xamee éclairage public dafa bokk ci yu ama am solo ci sécurité ak kaaraange ab dëkk. loolu moo tax eh, fi mu ne nii biir corniche bi sant nañ ci yàlla bu baax new na fooy dox guddi te te te te nekkul ne leer na nañ ndax bu njëkkoon éclairage public ni ñu ko xamee woon ñaari xàll yu mag yi wala yoon yu mag yi rek la ñuy topp. Touba ca kanam nag lim ci indi mooy dafa dugg ci biir quartier yi dugg ci gox goxaan yi gën a sori. Euh, yi nga xam ne xëy na sax man na nañoo jàppoon ne fii duñ ko sóoraale ci éclairage public diggante yooyu la leeral. du tey nag nit ñi danañ faral di wéy di wax ne ñun lamp yi ba léegi accès gut ci ñun waaye nañu bàyyi xel ci ne doxin wii Touba ca kanam di dox bu soppiku te rafet nañ jot ci ne du danañ lamp yi lamp yi dana àgg fépp. xëy na kay foofu lañ fay jaara rek soññee ngir ne euh, euh, ni ñu ko daan faral di waxee mooy Touba kanam bu njëkkoon. joxe bi dafa jiitu laaj bi léegi nag day mel ne laaj bi jiitu na joxe bi ndax li nit ñi sakku ci Touba ca kanam bari na lool te joxe bi tollut noonu loolu nag mën naa yeexal doxin bi kon xëy na soññee bi dëgg-dëgg mi ngi ci rek képp koo xam ne daal yaakaar nga Serigne Touba te fas yéene ko liggéeyal ci dëkk bi weer ci toppaat mooy dañu doon wax ne éclairage public gu dëkk bi ku ko doon xayma dana toll ci cinquante mille lampes loolu nag bu fekkee xayma boobu fa lañ ko sukkandiku kon Touba kanam defagu ci lu toll ak pour cent ndax 15000 boo ci boolee 5000 yi kon 15000 kanam defagu luy toll 30 pour ci éclairage public bu bu bu Touba bi. Euh, di sant yàlla di am mbégtewaat ñëw teewaat fii ci réceptionné bii nga xam ne ñu ngi lamp yi nga xam ne ñoo jógee extérieur ñëwaat ngir dolli li nga xam ne jotoon nañ ko indi woon ba jot koo def ci biir dëkk bi. loolu nag dafay wane lu rafet ak loo xam ne lii wane na ne Touba ca kanam taxaw na ngir leeral dëkk bi loolu nag kon ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm bu baax ci turu monsieur le maire waaye ci turu waa commune bi yëpp. ndax itam lii day compétence boo xam ne commune moo ko waroon a def muy leeral dab dëkk kon nag bu ñu ñëwee am mel ne tubaa ca kanam mu ñëw taxaw jàppale ci loola taxaw ca ba def ci defin woo xam ne nii benn dëkk ci Sénégal amu ko kon loolu dañ mën a sant yàlla bu baax sant Touba ca kanam sëñ bi wax na collaboration ak tou ak euh, commune Touba mooy lii rek fas yéene nañ nañ ko ànde a ngeen ci ci phase bu njëkk ba de phase su ñaareel bi itam nii ko fas yéene ànde ak lépp lu nga xam ne rek soxla ngeen ko ci muy yoo xam ne aju na ci commune bi commune bi pare na pour defaat na mu defoon ak yéen ba lépp def ci dëkk bi ndax lii ngeen di def ni ma koy faral di waxee seen bopp ngeen koy defal waaye nag commune bi ci jiitu ndax moom la waroon nit nag boo dara ko waree am ku la jàppale ca war waar boobee kooku war nga koo sant ameel ko njukkal kon ameel nañ leen njukkal waaye ameel na leen di soññiwaat nag sama bopp di soññiwaat ñëpp ni ko sëñ bi waxee rek ñaar téeméer moom bëriwut ke moo waral lii ndax eh, kenn ku nekk joxe sa ñaar téeméer dafay mel ne tey bokk nga ci kiy leeral sëñ Tuubaa kër si dëkkub sëñ Tuubaa ndax bu doon kër sëñ Tuubaa tey ñu ne nañ ko leeral yaakaar naa ne lamp yi dana fu fees bu dootu mën a tàkk kon nag ku nekk ci dëkk bi ci fas yéene tey bu ñu ñëwoon kaay woo leerali kër sëñ Tuubaa gi nga war a mën a wuti ab làmp def fa kon na nga fexe ba nga xam ni nii jë ñaar téeméer jënd ci boo ko defee rek mel na ne kër sëñ Tuubaa yi ci àdduna bi yëpp leeral nga leen Touba Ca moom ñu ko ñu ko jógee rek woote nu ñu war ngir Sëñ Tuubaa di ñu wis ngir Sëñ Tuubaa ñu laaj ñu man di ko def ñu xam damaa loolu mu leer ñëpp kenn kenn kenn kenn fàtteetu ko. ma gën soññ bopp di leen soññ rek ñëpp te xam ne euh, bari na bariwut ndax lii ci boppam euh, dañoo xam ñaata yu am jom la dañoo barke ak doole ak ak barke ak nguur dañoo bokkut barke ngërëm yàlla képp mooy def waaye nguur a doole la waaye bu doole jeex mu taxaw waaye barke lu gën a màggat gën a kii mu gën a dox bi Sëñ Tuubaa ñëwee Tuubaa léegi mu tugut téeméeraat te yaakaar naa bu ñu te ñaan nga yan si yàlla Ibrahima ñaan suñu subhaanahu wa taala sëñ Tuubaa ñaan nañu yàlla ñaan gopp nga waxee ndax yoon si yàlla Ibrahima ñaan na ko junni mu doon nangu sëñ bi bi mu soxee yoon wi léegi mu tugg téeméer ñetti téeméer kon nag dafa mel ne yàlla mi fi nekkoon rek moo fi nekk xam ñaan ak xam nu ko ñaanee moo tax mu wax ko yàlla bi ahab maskin fii daari yi loolu waxoon ñaan ñaan sama bëgg ahab maskin fii àddina lakk wa ni maa ngi seen ñaan naa sama dëkk bii muy làkk bi da gën a bëgg ci kaw suuf ñaan na ko wax wajal ilaahi maskani tuwaa abat mi sasmiha bi jaay xëy na abat mooy dëkk bi na mel turóo ci na te mbirum turóo ci àjjana ak guñ fañ bëgg a jëm kon loolu tàmm nañ ci ay ay ay ay yoon njëkk bi mooy génn lëndëm ci dëkk euh, fi leer waaye génn fi taq dugg set waaye dañ fi génne euh, tàngoor yi dugg fi set te tàmm lañ ko defee mooy garab yi ñu tàmbali te tuwaa garab la ñu see ñu Moussa Dieng Moussa si Moussa Amar mi nga xam ne mooy yor loolu di sant si Abdou Karim mi nga xam ne moo taxawal liggéey boobu nit ki dem rek ñu ngi ko sant di xam ne li ngay gis lu mu bareekoon rek seen ñaar téeméer euh, na doole amul doole waaye lu waaye na ko yokk rek waaye man ci sama gi dafa naa lu mel noonu am na groupe bu ubbi sax boo ne ni mbokki taalibe yi nga xam ne damay nekk seen ma yëri fu ma leen moom mu ne sëñ Tuubaa ngeen man nag woo naa leen ndax kenn laa mosu bind lay dara mu téléphone ne jox ñaar dërëm waaye nag jox naa ndigal lii nga xam ne ma ko ànd ak yéen ku ma ci a ànd man ànd te yaakaar na doo ëpp insha allahu taala ma fas lépp lu ma am lu ma ak ku xam ak ku ma man ma ci ndax soññ bi Seex Muntaxa si Muntaxa de mooy njaay ñëpp dégg nañ ko loolu dama da ko tiitaange tim ju rëy rëy ndax ki fi nekk Sëriñ Tuubaa ku mu dem ba am lu seere ci yow loolu ci ma nekku ci ma xam naa ko bëgg def ci man xob nu mu ko def ci noonu nag yàlla na xaj ci ñun waaye jëm sama tur yi la tudd waaye jublu sama tur yi yéen ñëpp la jublu ndax man defuma dara uma dara mënuma dara euh, lii nag da ngay jël coono bi yëpp jox ñu bi ni ñoo ko def defu ci dara kon may ñaan yàlla bàkk seen dama naa wax rek laay ñaan lépp loolu sëriñ Bamba naa rafet ci liggéey bii daal na koy boole ñëpp jox ñu bu leen ko joxee ba mu deexee baax na bu disul ma fete sëriñ Bamba làmp yi maa ngi jéggul mbokk yëpp ñooy dégg nag samay mbokki bopp dañuy ñëw di ay kilifa dama ci laaj man leen xamal leen noonu li ma la tam lañ tàmbaloo ci liggéey bi lépp ñëpp la lu ne ko ne ngi ci du càggee lu ñu yor pàccoo dañu ko pénco lu addu sépp bokk nag boo ko laajee ñu bëgg la ko jox yow dong du sotti maa ngi jéggulu képp ko laaj nga ci joxuñu la ci naa xam du ci man du ci mbooloo mi tim waaye ñëpp bokk la waaye fekk fu jege nga tëb ko dem fu sari di fa yóbbu wax yàlla du mu xel kon nag may ñaan rek bu kenn dikkati ma nag ma ci wax dara mm-hmm. ndax su ku ma ko waxee tamit soo ko defut dama ci mere te ba ma ci mere wax yàlla loo xam ne man doon naa ko lu addu si bokk na nga ma weram mm. yele eh, fan yee rek am na benn lampe ñu bëgg kii eh, grillees yi am na ay jamono ñu bëgg ko fi muy déwaay yooyu ñu def ko eh, ci yi ak lampe yi kii am mbokk taalibe ay mbokk yoo xam téléphone ay kilifa naa ma sama taalibe naa nga ma ko sëñ bi kenn taalibe amul taalibe sëñ Tuubaa rek amul taalibe dafa am loo xam ne mi ngi wéy masala baax na waaye am na foo xam jur masala ma ne ko man sama ñaati yi naa ko jégal waaye ñaati yi murid yi mënu ma ko jégale mm. kon nag képp koo xam yàq na ab na fay mm-hmm. képp koo yàq daañu garab na kon loolu hmm. dañ ma jéggal rek hmm, hmm. waaw yéen itam bu bu bu bu wax leen ko rek xëy na a ñàkk ci àdduna waaye nag damaa bëgg rek ñoom ñu alerté leen ñun ñëpp ñu sooy xam ne man sooy ñu ñu ci loolu rek te xam ne lii daal du càggee lu ñu naan suñ jiw moo nekk barab sàngam ñu ko yit kenn ko am nga foo nekk waaye nañ nañ am nappi mooy suñ tuwaa ji bu nappi te buñ ko ko bàccoo dañ ko ñu ko defee lépp dana baax ndax ku ñëw say dala ku ñëw nga jël si wàll ci jumaa doo nangu kon nag ni nga ko defee juwaa ji rek la kam juwaa la du melasul kenn bàyyi kenn moomu ko kenn du ko doonul kenn Sëriñ Tuubaa moom de ni Sëriñ Tuubaa mooy murid yi mooy dëkk bi mooy ko lépp la mooy Tuubaa ci kanam ji du ca genn kilifa gu fi ñëw nag laaj fi nañ ma yóbbul bara sàggam te fekk fi ñu ak guñ fa wax dëgg yàlla ma nekk macha allah kon nag mu demee dimbali ñëpp dimbali ma ci yàlla. demee dimbali yàlla ndax métti na ma te wax dëgg yàlla am naa ci am naa ci am métti ndax bëgguma yàq mbooloo bi ci te comme na sonaa ba ba ba ba bi bëgguma ñu ñu ñu jaar ci leen daal. kon maa ngi jégalu ba kàddu yi. si mun bàkk ñu ngi di siyaare mbokk fi tey yëpp si seexloo ak Ndiaga di sant nag sa doom ji nga xam moom taxawuñu liggéey bi euh, Ndiaga Fall ñu ko sant baax moom mu ñëw barab bi nga xam ne dañ ci def liggéey bi di sant ñëpp rek kenn ko si taxawaay gis nañ ko ci Babacar ci ñu ngi ko sant baax moom wax yàlla liggéey bi sonn ci lool ak ñu ànd ñëpp ndax yàlla ku lim da jub daaw jëriñoo lim di euh, euh, li may ñaan ci yéen euh, leeral suñ xaar bi yaa yo su ko yaa ñi nga ànd ñëpp yi bu xaar su ko tàmm léegi tey ci woon commencé monté lamp bi jël xaar lu xaar rek mooy tàddee adduna adduna yàlla xaar kenn démb wéy na kenn tegatul ko suba kenn tegagul ak góor ci tey la ñu teg adduna sëpp tey la doomu aadama ñu am nit benn bi su koy am ci lay gën a adduna ci lay faatu ci lay am wërsëg ci lay ko ñàkk ci lay am lépp lépp benn bis la kon tey mooy tey natuwaa nekk tey rek yéen a tàmbali leen bu ngeen xaar dara dara dara dara yaa fadlan sunata ya majidu anta abdi falan wasidu mawlaaya anta sunata ya nafiu anta abdi falan xaatiu anta lasi tuli muibuka huda anta abdi falan xisiwaa